verticalité euh, africaine sax laay wax. c'est-à-dire ici bon les gens da ngay jàng rek pour passer en classe supérieure. oui <laughs> tu as l'impression que les euh, dañ lay buure on te met tellement de matière que matière yi nga xam ne yow sax soxla woo ko. maa ngi gis léegi ci commentaire yi am ku def euh, vol de nuit bi nga xamante ne ay Buenos Aires nañ lay wax yu kenn xamul. <laughs> ñu ñu koy jàngal alors que am na fi ay auteurs. moo tax moo tax mu ne la rek dañ lay dañ lay bourrer ak ay matières yoo xam ne amuñu leen njëriñ. oui. ay musique ay musique am na am na am na benn waay benn waay dañ doon waxtaan mu ne man ba tey lancer poids xaw ma ban njëriñ la. <laughs> képp képp képp képp lancer poids dama xamul ban njëriñ lan lan amal. EPS <laughs> ak ay ay roulade yi nga daan def ay école maanaam ay fa fa affaire yoo xam ne du la njëriñ. dara mais éducation sportive dafa am solo. Georges euh, Desa boobu sax boobu sax Georges boobu sax sport la. <laughs> mais y a des matières yoo xam ne comme euh, kii. sport euh, yi bëri na pas pour hmm? moi lancer poids. lancer lancer poids lancer poids ban yow xanaa sax ñoo xam ne eh, dañoo. am dañoo bëgg nekk ay mbër sax mën nañ ne gis nañ ci seen bopp. mais à part ñooñu. Mhm. lancer quoi ban njëriñ la la amal yow. c'est vrai donc finalement ñu lay teg ay matières yoo xam ne. wala tëb sa voilà. Mhm. et puis li ci li ci kii mooy que mooy que tu tu passes des années. oui ah c'est six ans plus les quatre ans de de de de du collège. Mhm. presque dix ans ci sa ci sa ci ci ci dund dix ans ci dund nit c'est c'est c'est beaucoup. mais tu tu passes tout ce tout ce temps là sur des sur des sur des futilités maintenant man. je damay relever un peu benn incohérence quand même du du du du système wala du projet. Mhm. bi nga xam ne euh, li ñu bëgg mooy introduire introduire l'anglais à l'école. Mhm. Euh, de de de de l'élémentaire. de l'élémentaire waaw c'est une bonne chose certain mhm. de d'apprendre l'anglais parce que balaa nga koy xam rek nga voyager boo voyager da ngay da ngay jóge fii dem aéroport Banjul bii rek. tu trouves pas à à moins que tu trouves quelqu'un qui parle wolof mais tu trouves pas un interlocuteur. dans les grands aéroports tu parles pas anglais mais tu n'existes pas. Mhm. donc le Sénégalais dafa dafa war a ub dafa war a ubbeeku ci côté boobu mais man j'aurais j'aurais j'aurais j'aurais j'aurais j'aurais souhaité que les gens mettent beaucoup plus d'énergie sur l'enseignement des des des parce que y' a beaucoup de déchets scolaires les exclus système. comme par exemple euh, langue nationale li bu ñu ko jàngale woon doo nekk fii di làkk tubaab wolof ngay wax. mais c'est ça wala may làkk <laughs> <laughs> man j'ai j'ai Euh, assimilation bi bi bi mënu wax pulaar. Eh alors que sama wolof de demeewul noonu. donc je suis obligé de m'exprimer en français wala de faire beaucoup de de de rajout en français. ok bi fi eh? Macky Sall di nekk sax duñ nangu pulaar. <laughs> képp képp képp <laughs> donc donc daal man man j'aurais compris que les gens fassent beaucoup plus euh, mettent beaucoup plus d'énergie mm -hmm. à ce que ñuy jàng les les langues nationales parce que je disais qu'il y a beaucoup d'exclus du système mm -hmm. c'est pas parce qu'ils sont mauvais hein, c'est pas parce qu'ils sont nuls mais c'est parce qu'ils comprennent pas ils comprennent pas li ñu leen bëgg a jàngal dans la dans leur langue d'adoption mm-hmm. Mm-hmm. langue bi ñu leen ko bëgg a jaaralee le français wala wala wala ñun ñëpp ñun ñëpp chaque de son de son côté boo boo xoolee rek dans ton cursus Euh, y a des y a, y a des gars que tu connaissais qui étaient extrêmement brillants. Mm-hmm. mais qui qui été laissés en rase campagne. ñoo xam ne après dañoo ils ont été exclus système bi moo leen exclu mm-hmm. non pas parce qu'ils pas brillants mais parce que bon peut-être euh, euh, français bi ñu doon lakk peut moo leen arrangé mm-hmm. donc loolu yaakaar naa ne bon li ñu war a ñu war a xoolaat la le Rwanda a réussi à angliciser son son système. parce que aujourd'hui les jeunes rwandais c'est des anglophones c'est pas des francophones. xam nga Rwanda avant des, des francophones parce que ils sont colonisés par la Belgique mais aujourd'hui euh, les les les jeunes rwandais que tu rencontres mais ils ils en anglais caché. Mhm. donc euh, loolu c'est l'exemple rwandais ça leur wala ça pas réussi je pas. mais en ñun dañu waroon def comme je crois que c'est dans les langues nationales. parce que mhm. foofu la ñu gën am les outils pour pour pour pour pour comprendre li nga xam ne même maths bi sax les maths les sciences physiques et autres là mhm. peut-être que bu ñu ko doon un Sakhir Thiam am na muy expliquer les maths en en wolof peut-être que y a des mhm. y a des y a des y a des gens yoo xam ne bon peut-être noonu lañ gën doon gën a comprendre mhm. plutôt que bu ñu ko expliquer dans la langue de Molière effectivement c'est que contradictoire c'est-à-dire pourtant boo demee à l'université par exemple dañ lay dañ lay euh, en tout cas pour pour ñun ñi ngi ñun ñi doon def en tout cas anglais euh, à partir de la licence dañ loon imposer nga choisir une langue une une deuxième langue. deuxième langue boobu mën na nekk pulaar mën na nekk séeréer mën na nekk olof mais tu tu te rends

et l'élémentaire. Mm-hmm. Effectivement. di ko bind. il y a des gens par exemple ils écrivent très bien le wolof. oui oui mm-hmm. très bien euh, parce que le parler làkk ko rek yomb na mais est mën nga ko bind wala est mën nga ko lire. Mm-hmm. et c'est ce qui fait aujourd'hui que par exemple toutes nos réclames publicitaires yi ngay gis ci tableau yi dañoo bëri ay parce que ni ñuy bindee olof bi du euh, c'est c'est pas. c'est c'est c'est wolof francisé. francisé de telle sorte que boo gisee nit bind ceddo. <laughs> on chaque jour dañuy wax Ceddo kenn du ko bindee nii nii nee la Sénégal boo koy bind da nga warul amul warul am accent mais A de de A L à la fin. Mhm. donc voilà sa amène ça léegi sax boo diggee bu <coughs> politique bi may tax léegi sax ma. parti politique laay bu léegi ñu ngi tax léegi que voilà que les gens s'intéressent un peu à wolof mhm. nga dégg boo indee coalition au nga tuddoo ko ak benn phrase ay ay diis yooyu mhm. Mhm. ay parti africain pour l'unité pour la démocratie kenn xamul Wade moo fi indi soppi <laughs> mais Wade ñëw indi soppi soppi boobu boo ko déggee si nit c'est plus facile à tenir et maintenant la tendance c'est quoi da dégg nit ñi bu ñu créé seen quoi tuddee ko yeewee askan wi kii nee tabax kii <laughs> gens puissent nous comprendre. parce que boo demee su suma nekk njagañaaw nga ne leen AJPADS mooy xaw ma lan. parti africain pour la démocratie et le socialisme. <laughs> waaw pour la démocratie et le socialisme MRDS mooy xaw ma lan lan lan. mais kooku boo ko waxee euh, yeewu askan wi mu xam. effectivement nga wala nga lakk ko en séeréer. nga créer sa parti tuddee ko. benn benn appellation séeréer. Mhm. wala pël bi tuddee euh, partem euh, séeréer. Mhm. mais ça passe mieux. Mhm. le message passe plus. et le militant comprend beaucoup plus. d' accord d' accord euh, mi ngi koy tudd léegi moom Ibrahima Anne maam Ibrahima mathématiques yi bu ñu ko doon jàngal xale yi ci wolof un plus un mun nañ ko bañ a comprendre mais ku leen ni benn ak benn benn pom ak benn pom daañu la ñaar la est ce que quand même bokkul si urgence yi nga xamante ni dañ ko war a teel a teel a teel a comme ça ñu jëm ko régler pour li nga xamante ni mooy enseignement bi. waaw xam nga euh, déjà euh, non seulement euh, langue bi nekk outil de travail mais également comment dire connaissance bi lalu ci ginnaaw langue boobu. Mhm. parce que souvent li ñuy jaawale mooy langue ak connaissance. mun nga fi ñëw wax sa français bu jub bu normal mais bu demee ba loolu comment dire xalaat argumenté yooyu nga am problème wala boo waxee li ngay wax bu am cohérence mhm. donc ma jàpp ne outil boobu. warul bokk dara ak contenu bi li nga xamante ni moom la ñuy def ci biir te li nga xamante ni moo lay mën a permettre contenu bi nga assimiler ko bu baax moo ñu jox la uti boo xamante nii daanaka moom nga nampaaleel mhm. loolu moom mooy idéal bi mais bu boobaa nag xanaa ñu ne olof lay doon mhm. wala ñu ne comme que président Bassirou Diomaye Faye moo fi nekk ñu ne séeréer lay doon mhm. séeréer la ñuy introduire <laughs> non non mais toog rek <laughs> de toutes les façons on ne l'acceptera pas de ñun on ne l'acceptera pas on va freiner des des ah, quatre <laughs> xool. Mm-hmm. en tout wolof mooy langue national bi. oui dañ koy commander dañ koy. introduire mm-hmm. à l'entrée mais bu boobaa day fekk mu am ñoo xamante ni déjà au préalable formé nga leen ci wàllu mathématique boobu en wolof. effectivement parce que sunu professeurs yi di jàngale <laughs> il n'est pas c'est assuré que sax li ñuy jàngale ni en mathématique ay racine carrée yooyu gow mu ne am na nu ñu ko traduire mhm. nu ñu ko mën a traduire te defuñu ci wax dëgg yàlla ay ay ay xawma ay séminaire lay doon mais mhm. ay affaires yoo xam ne dañ ciy xeltu pour xool naka la ñuy def de sorte que bu doon xëy na traduction littérale mais ñu jël ko approprié wu ko am ci yoo xamante nii sax su jaree soppi ñu soppi ko mettre ko en fonction de de de de de de sunu langue de sorte que day gën a neex a comprendre ci ki koy déglu ak ki koy jàng mhm. mais en tout cas loolu moom te nag ça ne veut pas dire que xam nga dañuy jékki-jékki rek ne génn nañu ci français bi. Hmm. pour man loolu tamit c' est pas une idée. processus la. processus la hmm. te li tax sax français bi quelque part mënuñu ko jékki-jékki bàyyi. man dama jàpp ne xëy na mun nañu permettre mun nañu servir de trait d'union hmm. entre ñun euh, comment dire sénégalais. ak maliens yi ak ivoiriens yi nigériens yi yeneen ak yeneen parce que Afrique li nga xamante ni également bokk na ci ay euh, spécificité am mooy les nombreuses langues les nombreuses ethnies yi nga xamante ni am na donc boo amee benn langue boo xamante ni moo lay mën permettre comme ni ñu ko doon waxee ci euh, euh, comment dire loolu amoon na sax une langue universelle boo xamante ni moom lañ doon teg pour tous les peuples mm-hmm. dem nañu ba benn instance sax ñu bàyyi ko mais bëggoon nañ koo voté fële ca euh, Nations Unies damay fàtte tur bi mais benn langue la boo xam ne dañ ko bëggoon a def mondial mm-hmm. mais dans tous les cas comme ni ñu ko ni ñu ko waxee noonu jàpp naa ne xale bi nga xamante ni moom moo gën a pare pour assimiler li nga koy jàngal mooy ki nga xamante ni da koy jàng ci li nga xamante ni moom la nam mhm. mu nekk wolof mu nekk leneen ak leneen mais loolu moom xaw ma naka lañ koy defee nag parce que ce ne sera pas du tout facile. effectivement mais c'est l'idéal. Mmh. Euh, mbirum langue bi peut-être processus la mais li nga xamante ni war nañ ko mën a def léegi léegi maam mbirum mi ngi koy wax sànq mooy euh, fexe ba euh, voilà ñu mën a jàngal xale yi suñu culture ak suñu tey jii maa ngi dégg la dernière fois Guy Marius Sagna di wax ci lu mu tudd charte Mandeng bi nga xamante ne moom la ñu bëri jàpp ni moom moo inspiré charte de droits de l'homme yooyu noonu yëpp est-ce que jotul quand ñu teel ko jàngal xale yi. mu bañ a nekk ay mbir yoo xamante ni dañ koy euh, cof rek mais ñu jàngal leen ko ba ñu xam bu baax a baax suñu histoire euh, peut-être na permettre ba ñenn ñi la langue bi tudd am na ku ma ko bindal léegi bind na la langue espéranto espéranto voilà ñu mën a permettre euh, ñu mën a xam bu baax a baax suñu histoire pour mën a am une identité propre Georges Nessa ak Ibrahima ñu tëj waaw xam nga rek mbirum langue dafa xaw a complexe oui Euh, pour nga pour nga commencer par exemple tey tey boo waxoon ne par exemple dañuy introduire euh, njàngaleem euh, séeréer par exemple en mathématiques à l'école ah, loolu xam nga mënoo xëy rek def ko tey. Mhm. il va bien falloir que nga am comment on appelle ça encore la boo ko waxee x bi naka lañ ko mën a waxee ak y bi naka lañ koy waxee séeréer. Mhm. parce que là sinon si tu te limites à dire que x égale y xoola y xaw ma lan équation mooy lii ak lii. Mhm. loolu pourtant mën a nekk mën a nekk si séeréer mën a nekk si wolof mën a nekk si mhm. couleur mën a nekk si langue yëpp. Mhm. parce que même philosophie bi ngay gis noonu. mais boo demee dans les librairies maintenant gis nga ay gars yu bëri nag y' a beaucoup d' nga xam ne léegi c' est en wolof en en en pulaar et kenn mun ko génn ci philosophie. mais mais voilà donc tout ce que tu apprends. par exemple ak mbër bi mbër bu bees bi euh, Bébé Saloum kenn mënu ko génn par exemple ci philosophie. ah mais voilà yo yo yow par exemple gars yi bu ñu bu ñu lay waxal tey ay affaire u baar ma pour. oui ay ay ouvrage yu bëri en tout cas son histoire léegi gars yi koy bind en wolof. d'accord et ça je crois que bon c'est une philosophie boo xam ne boo ko euh, au lieu nga koy traduire le euh, l'élève sénégalais mais tu le tu le lui apprends d'abord à le lire en wolof. Mhm. ou bien dans sa langue maternelle. boobu boobu la koy gën a comprendre que plutôt que nga utiliser ay français yu diis pour expliquer la philosophie de Kocc Barma bi nga xam ne. Kocc Barma bu mu koy def. Euh, il n'écrivait pas en, en, en euh, il ne parlait pas français. Mhm. si wolof la ko doon lakk. d'accord donc je trouve que là également. Euh, même histoire yi l'histoire ay ñoom ñu lay lire loo ay Camara Laye en en en truc. on mm -hmm. pourrait bien l'avoir en en wolof et mhm. Mhm. alors Ibrahima même chose laa lay laaj mbirum peut langue bi dina xaw a jafe mais jàngal quand si suñu histoire war na mën a doon une priorité pour gouvernement bees Mais, abso mais absolument, l'un rejoint ou l'un n'exclut pas l'autre. Euh, parce que de dès, dès l'instant que ñu commencé di jàngal di jàngal xale yi wala di di leen euh, comment dirais-je euh, di leen tàggat déjà dans dans leur langue maternelle je crois que ça cela sera pour la pourra faciliter l'apprentissage des autres matières y compris donc l'histoire mm ak euh, de euh, je crois Georges mm-hmm. je crois que Sahir Thiam quand même il a eu il a fait l'effort yooyu yooyu noonu nga. yëpp da ko traduire ah, x ak racine carrée yëpp la traduire ay les les cosinus les sinus les les les. effectivement lépp la traduire les racines carrées. ah je crois que yooyu yëpp yooyu yëpp kii na quoi. si bind na ci livre def na ci yëpp c'est vrai qu'il y a pas eu un effort de vulgarisation. effectivement y a eu un aucun effort de vulgarisation. non mais nécessité sax hmm? nga def ay atelier de travail. ak ñi nga xamante ni ñoom nga bëgg ñu. effectivement jël kii boo euh, li Sakhir Thiam bind. approprié wu ko joxe ko. c'est ça bu fekkee ne vraiment y a un gouvernement qui a de la bonne volonté en tout cas am na am na matière je crois y a eu aussi les travaux de Cheikh Anta Diop. et je ah, crois savoir qu'il y a aussi d'autres gens gens qui sont aujourd'hui dans les laboratoires ay IFAN wala affaire yooyu mais du matin au soir ils travaillent sur ça. Mhm. donc volonté politique bi peut-être peut-être modeste bon espérons que euh, ça va se. décanté dans le bon sens. d' accord mmh. d' accord euh, beneen waa jële doon wax rek au Sénégal y' a des chercheurs mais des chercheurs qui trouvent on en cherche. Mmh. <laughs> xam nga gars yi da nga leen di yóbbu foofu ay IFA di leen di voter ay budget yu takku mais daanaka néew ma liggéeyuñu nag. mais mmh. dañuy liggéey li ñuy jël ñu ranger ko foofu kenn du ko soxla. des chercheurs qui cherchent on en trouve mais des chercheurs qui trouvent on en on en cherche. waaw <laughs> mais mais mais y' a aussi des chercheurs qui cherchent et qui trouvent malheureusement leurs travaux sont en vase clos. xam nga dañu naan rek bon moom vous dans votre monde universitaire là un monde feutré da xaw lan yéen daal nekk nekk la foofu dans vos folies rek mais mais euh, y a beaucoup de de de de d' excellents de d' excellentes recherches yoo xam ne qui sont menées à l'IFAN yoo xam ne ñi foofu mais xam nga la recherche par exemple euh, en France le CNRS Centre national de recherche ces recherches sont appliquées à la vie de tous les jours mais fii on a des professeurs, on a des chercheurs, des gens qui sont dans les, dans les, dans les laboratoires, notamment à l'IFAN, oui. surtout dans les matières ay anthropologie, sociologie wala yooyu wala l'imaginaire ak yooyu mais ils font des travaux il faut ils ils ils cherchent ils malheureusement ce qu'ils trouvent n'est pas appliqué c'est comme si on leur disait bon yéen daal yéen moom nekk lekk leen foofu rek mais li ngeen di wax ak li ngeen di def amuluñu benn benn solo amuluñu benn njëriñ ou avant mais en tout cas de cause bon peut-être que moom à lui seul il peut pas imposer quoi que ce soit maintenant. Euh, même même même kii sax euh, le directeur de, de euh, du cabinet du président de la République lu mu tudd. Euh, euh le mathématicien euh, Mary Teuw Niane moom aussi def na ci ay recherches ah. oui def na ci ay recherches yu yu yu sori. Mm-hmm. Effectivement. Mmh. Donc, il euh, y a des chercheurs qui, qui, qui, qui cherchent et qui trouvent. Mmh. Malheureusement, les, les, résultats de leurs recherches ne pas vulgarisés. Voilà. En tout joxuñ ko gëdd bi nga xam ne moom la war a am dans la société. D'accord. Euh, tey jii booy xayma sa bien.